saan koor bi ñëw na bi dikk na mbokk yi ndeysaan bi dikk na mbokk yi mbokk bi si réew mi koor baa ngi noonu ndeysaan di la di la Gaston Mbengue nga nekk oh ndeysaan ndeysaan ndeysaan kilifa yëpp ñëw nañ mbokk kilifa yëpp dikk nañ mbokk yi te axul làmm am nañ nakkat ak tiis allahu akbar axul làmm am nañ nakkat ak tiis inna wa inna ilayhi rajiun allahu akbar bu mës a ñam dund di nga ñam dee laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam taw feex koor bi noonu jàmm waaleykum salaam ñoo ngi lay ñoo ñu ngi mais ne ñu ànd luy mën a nekk rek nañu ànd ak dal rek. parce que fi ñu ñëw nañu ànd ak dal ñun ñëpp ñu dégloo. Cheikh ko lay tey danga ngaa yeewu ak naqar. tey da nga yeewu ak tiis. dañ ko fanaanoo dañ ko fanaanoo sax. tey lan nga ñuy mën a wax sa digganteeg Gaston. waaw Gaston moom wax ci moom dina yomb torop sama xol nag fees na trop tey. wàcce leen micro yi ndànk. parce que Gaston li ko waroon ci àdduna. Mhm. def na ko kon liñ koy ñaanal rek mooy fa mu jëm. Mhm. ah suñu borom teeru ko ci teeru bu gën a rafet. amiin waaw te xam naa ne jàmbaar la àdduna moom la ko ci waroon def na ko. Mhm. waaye yàlla moom ay mbiram euh, nii lay demee. waaw di sant bu baax di wax benn anecdote bu ndaw. Euh, Gaston doon na doomu aadama boo xamante ne Alaaji Mansour Mbaye laa ciy jël comme seede mhm. am na anecdote ñu bare dañ doon séq maag Gaston te xamuñu woon lan lañuy ñuy séq man ak moom dañu yaakaaroon animosité la mhm. mais ma wax la tey benn anecdote mhm. Alaaji Mansour mbay mu ngi may dégg ndax moo ko fekkee moom moo toog Gaston woo ma téléphone may tëgg euh, Bombardier ak Yékini mu ne ma nañ daje sama boutique ville li ngay sol man maa la ko bëgg a jox. Mhm. ma ñëw ba ville foofu jour boobu moo tax ma ne la Hadj Mansour Mbaye moo fa nekkoon ñoom ñaar kase man moom ak yàlla. Mhm. costume bi ma sol jour boobu muy rayé boobu Gaston moom ma ko jox. Mhm. kon xam nga bu doon animosité am na. du ma jox yére ma sol ko kon loolu anecdote bu ma doon wax la. di gërëm ñëpp di sant ñëpp. di wax ne àdduna nii rek la. àdduna moom nii rek la. Euh, mooy li may wax rek nañ delloo ñun ñëpp suñu xel ci suñu borom. ndax sëñ Touba ba muy dem géej. Mhm. di sànni der ba. Mhm. nit ñi géej lañu gis. Mhm. waaye sëñ Touba yàlla la gis. moo tax ba mu lalee der ba mu taxaw. kon nañ delloo suñu bopp ci yàlla. xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay. Eh, di ñaanal ñëpp jàmm taw feex sutura xew. boo amee kaddu yooyu dénk njabootu Gaston. waaye boo amee kàddu yooyu dénk ki nga xam si ni moom la jox lenge yi muy makkan boo amee kàddu yooyu dénk njaboot yan kàddu la. non kaddu yi moom lenn rek la. Eh, seen baay. am na empreinte bu marqué Sénégal loolu avantage bu mag la ci ñoom ndax tey boo ne man doomu Gaston Mbengue laa fii Sénégal am naa yaakaar na nit ñi dina am cër buñ la jox perpétuer nag liggéey bi nga xamante ne moom la fi doon def ndax loolu lu am solo la euh, lu am solo la te wax dëgg yàlla màkkaan gis naa ne jàmbaar la ndax mu ngi béy waaram ñun ñëpp nañ ko jàppale lii rek encore une fois mm-hmm. day wone ne Euh, ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay. la ma ko waxoon ci déju Pape Aziz Ndiaye rek. Mm. ne ko bu la dara jaral xëccoo. bu la mm. dara jaral dara. Mm. ndax la ma la wax sànq rek lépp loo gis boo ci gisee yàlla doo sonn. Mm-hmm. ndax tey boo jàkkaarloog gaynde gis gaynde yàlla bàyyi laa gaynde yi. waaye boo jàkkaarloog suñu borom. ne gaynde yii yàlla la. Mm-hmm. boo ko fa tegee rek. Mm-hmm. da ngay gis ne yàlla la. yàlla mooy ñëwal boppam. daal di la aar. daal di la boo gisee nag mu bàyyi la ak gaynde mm-hmm. Mm-hmm. gaynde yi defanteeg yow mm-hmm. gis fa yàlla rek incha allah jërëjëf jërëjëf yaa ngi boole te yaa euh, comme niñ koy waxee rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñu sant yàlla bu baax du julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di rek ni ko Sénégal yëpp amee ni ko njaboot yëpp amee Eh, ku ne xam na tey ki ñu ñàkk muy suñu papa Gaston Mbengue Salif ñëpp xam nañ suñu relation ak moom comme ni ñu ko daan faral di waxee rek moom suñu papa la en dorde mu nekk suñu papa suñu xarit la woon suñu confident la woon suñu conseiller la woon suñu partenaire la woon yàlla moom a booleeg moom ñu amoon des relations yu profondes ba ñëpp xam ko muy njabootam. ay jege ñaaleem ak ñëpp xamoon relation bi ma moog moom kon tey mun naa ni man bokk naa ci ñi nga xam ni ñi gën a ñàkk lañ mais ñu sante ko yàlla rek xam ne àdduna ak loolu ñoo ànd macha allah. Mhm. tey askanu làmb ñàkk nañ ku dëggu ñàkk ku baax koo xam ne ku ko xam xam ko ci dëggu. waaw Gaston moom il est multidimensionnel xam naa ne nit ñi dañ ko gën a xam ci làmb rek mais c'était un acteur de développement un opérateur économique koo xam ne ku amaloon réew mi la ci secteur yi nga xam ne a xamee mais il était dans secteur Sénégal yëpp ñàkk nañ Sénégal yëpp xam nañ ni c'était une personne valeureuse nit ku amoon njariñ la ku amoon importance la yàlla moo dogal ni nag moom dafa nekkoon nit ku dëgg ku ko xam-xam ko ci dëggoom ci rigueur ci nit ku mën a défendre ay position kon boog ñu ñaanal ko yàlla rek yàlla xare ko àjjana yàlla moo ñu ko joxoon moo ko jël mais am nañ ci moom yaakaar na xolom ak dëggoom ak man nitam li ñu mën a seede ci moom mooy ku mënoon nitam la woon Gaston moom bu xëyee suba ba ngoon ci problème mu jàmbur lay dox. Mhm. bu xëyee suba ba ngoon ci lijjan lijjanti nit ku am jafe-jafe lay nekk. Mhm. bu xëyee suba ba ngoon ci xool kan moo nekk ci xat-xat mu mhm. dox ci wax ci ci muy famille muy ci sa wàllu liggéey ci sa wàllu lu nekk man yàlla dafa defoon dama amoon nag moom relation yoo xam ni daf ma daan taxaw ci lu bëree bëri ci lu nit ñi xam ak lu nit ñi xamul lu nit ñi yëg ak lu nit ñi yëgul dañ daan échanger saa su nekk di waxtaan bi mu tëddee feebar dem naa ba France seeti ko fekk naa ko fu nekk seeti ko parce que relation boobu laa amoon ak moom mm-hmm. maa ngi koy jaale njabootam yëpp di ko jaale suñu frère Makan Mbengue démb bi mbir mi xewee gëm naa ni man maa fa jiitu nekk fa ak moom nekk ak njaboot gi yëpp ndax dëj bi ñun ñëpp ñoo ko bokk Gaston suñu papa la woon suñu xarit la woon kon bokk Sénégal yëpp ñoo ñàkk ñu ngi leen koy jaale wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Sénégal a ñàkk waaye yooyu aussi ñàkk nga ñu leen koy ñaanal bu baax a baax dégg ngeen kàddu yooyu nga xam si ni moom mooy moom mooy Aziz Talla Ndiaye. ndeysaan mbokk yi Aziz Ndiaye nga noonu ça c'est incroyable ndeysaan ndeysaan bàyyi jaay ngi noonu tegu mbokk yi nga noonu gis ngeen kàddu yoo xam ne ne moom la Aziz Ndiaye wax ñëpp ñëw nañ ak lu làmm ak lu làmm ñëpp dikk nañ macha allah ndeysaan mbokk yi ñoo ngi fi nga xam ni nii mooy levée du corps Gaston Mbengue ndeysaan ñu ngi fi si levée du corps Gaston mbeg